جزاك يا حل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا خير الجزاء ومنا خير الجزاء ومنا خير الجزاء خير الجزاء dañu bëgg Seydina Muhammad xaral ya saawa mu naa daarayka awlaaka faxlam bi annaka ani suuri dan abadan wasaaka ruxka fi dunya fi dunya wa uxraaka jërëjëf Barça ñu ngi kontaan bu baax ñoom joojo mu Serigne Saliou ak Fa Mbay Fall mu maam Cheikh Ibra ak ñoom nday ami ñooy jug léegi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel mbooleem gan boo xamante ni bii ñëw nga ci jotaay bi ngir soutenir ñu ci guddi tay gi di bu baax sama papa maa ngi daan maa ngi lay ndokkeel bu baax boroom jaxate kaba si di jaxate ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ndokkeel dëkkandoo mënuñu leen fay bëgg naa lool ci seen jëmm yi tedd yi ci teewaay bi ak taxawu bi lu ngeen dégg ci ak cant ak ngërëm ci dëkkandoo yi jàpp leen ni yéenay boroom ndax nekkin bi rafet na lool yàlla na seen jàmm yàgg lool jërëjëf Serigne Cheikh Sara Kassa ñu ngi ndokkeel délégation bu diaspora immobilier sopp nabi activité ñëpp Mouhamadou Lamine Tour di ingénieur bu mag ñu ngi koy ndokkeel moom tamit di ndokkeel également monsieur Guèye di frère ci ki nga xamante ni bii moo jiite diaspora sopp na bi ñu ngi koy ndokkeel nguuda moo bëggoon a teew àndandoog ñum waaye bu doon sagoom day ñëw waaye daanu moo dajul suuf moo tax gis nañu teraanga ji bari na lool ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel Cheikh sàmba Diarra Mbaye moom Cheikh Sidi Makhtar sila di taalibi Serigne Saliou di sunu xarit di sunu soppe di ku yàlla baaxal tey bokk ci ñu ñu dara jaale guddi gi muy suñu xarit lool rajo boolewuñu télé boolewuñu booba tàng ay gone lañu micro bi ma yor tey mën na ci lu ne ku mu xam ku baax boole nañoo ak moom rawatina yu baree bari fële ca Dakar muy suñu xarit yàgg séq ak ñun teraanga ñu ngi lay dokkeel bu baax li ma naan koo ñee doo ko defar waaye ñeewoo ñu moo tax foo toll di ñu séq ak ñun teraanga yàlla sa jàmm yàgg lool di ndokkeel sëriñ Moustapha Fall moom sëriñ Saliou Mbacké di suñu soppe di suñu xarit di suñu wëllëre di koo xamante ni bii yenn saa yi suñu yaram nege-nege yenn saa yi ñoom cat xaw a jàpp suñu jëmm yi yenn saa baat bi ñu xaw koo jàpp waaye lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj lu mu teel teel bu ñu ko woowee téléphone bu ñu ñëwee këram du ñu ràng mu boole di ñu ñaanal boole yëkkati alalam di ñu ko defal bokk ci ñu ñuy sargal ci guddi tay gi sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax mu ànd ak sëriñ naa Mbàkke moom sëriñ Abdourahman ànd ak ki nga xamante ni bii mooy sëriñ Moustapha docteur ànd ak ki nga xamante ni bii mooy sëriñ Abdoulahi mbay sëriñ bi bëgg nañu bu baax yow xam nga man xam naa yàlla xam na Serigne Saliou la yar ngay borom xam-xam bu tedd di ma ñaanal toujours di ma accompagner gis naa ni nga taxawee ci guddi gi ci ay ñaan ci lépp loo ci def rek jàppal ni yëg naa ko te maa ngi lay ndokkeel bu baax bokk nga ci ñi njëkk a ci seen alal ni ma démarré ko guddi gi barke borom Touba Mbaye Diagne moom Serigne Saliou barki démb damaa toog ba mu yàgg def na une semaine programme bi mu woo ma téléphone ni ma di jotaa la foo nekk ma fekk la fa dama laa bëgg a ci guddi gi lu bi di ñëw. muy suma xarit nekk mairie bu zone ouest di nit ku baax koo xamante ni saa yu ma toogee ci rajo bi rek orange moo nem day dal ci man maa ngi lay ndokkeel di leen bu baax di ndokkeel yi am di bajaan di sunu xarit bokk ci invité d'honneur guddi gi ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ñaan yàlla mi borom jàmm jàmmal la ci barki Cheikhul Khadim di ndokkeel ki nga xamante ni bii mooy waa groupe Ngonal famille di benn groupe boo xamante ni bii ñun mbokk yu ñoo fa daje ñu leen di ndokkeel def nañu délégation bu mag ak ñi ko jiite ñëpp dinaa ci ñëw léegi amuñu seen fay ku ma limul rek dama egseegul ci yow ndax boo ma fi nekkee di lim ñëpp du ma si jógee ndax man maa ngi di taala bu Thiès Thiès ñëpp dañ maa bëgg di ma bëggee ñi fi ñëw ci ngoon am na ñoo xam ne foo ma leen damay ñëw ci nit ñi ko dimbali ma fexekee ma xam nu mu tudd barki borom Touba léegi ci mujj aw ma seen fay ci rajo bi rek lañ ko dégg ak télé bi monsieur Birane Gueye maa ngi lay kontaane bu baax omal sa fay bi nga yàggee jàpp ci sama combat du tey sa usine ndox bi saa yu ma xewlee ngénte wala may céetal nga bàyyi lépp loo jàppoon yónnee ma ay ndox yónnee ma teraanga bu yàggul dara bi may sama doom ji ma tudde Serigne Fallou dangaa jóge Tiwaawan fa nga aaye woon waaye dangaa bàyyi lépp loo jàppoon ñëw te ku ne xam na ni jamono ji dañu laa affecté ba Tamba fu sori nga bàyyi ko fa ànd ak délégation bu mag bii sama impaañ mi ngi ci soxna Xadi ñi ngi di ku baax soxna Xadi Ndiir ñu dénk ko sama tonton Pape Mbaye ak ñi ngeen àndal ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax li ngeen di yóotu bu gënee ci yéen yàlla ngeen ci jot ci barke yonent bi di la yóbbal ci suñu nuyoo ci président Bougane Gueye nga xam ne ñoo bokk Serigne Mbacke Soxna Lo bokk Serigne Moustapha Mbacke Mohamed maa ngi koy wax sama papa bët ki rek ma ne ko gis naa vidéo Serigne bi dem seeti Bougane Gueye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di la yóbbal ci suñu nuyoo ci Badou Euh, moom ñu dem ko suñu yaay na soxna Aminata Kébé dafa sori loo nekk bitim réew moo tax ñëwul moom soxna Aminata Kébé ñu ngi ko ndokkeel bu baax di dalal gan yëpp nag bàyyiwuñu kenn dañu doon dalal rek Cheikh ñu ngi lay ndokkeel bu baax moom moom sama soxna ñoo bokk ndey ak baay soxna Kaja bu Thiès Info ñu ngi lay nuyu ak délégation bi nga àndal ñëpp ñëw soutenir sa nit yàlla sa jàmm yàgg loolu bu defee rek sëñ Massamba ñu daal di lay jox rek nga wéyandil programme bi. bu ñu noppee daal di ñëw ci leneen incha allah bu neexee yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp bu ngeen gisee ma toogee damay jékki-jékki rek di xool ñan laa war a waaye am na ñoo xam dama koy def rek en gros rek ñu yóbbaale ñu ci des ay bu ko defee rek ñu wéyee programme bi Barça jërëjëf. bismillahi wa rahmaanu wa rahimul xaadimil yow sayyiduna muhammad defal nii ñu màggal ya rasulillahi sayyidina safiina almuxaddami hinda allazi tasku laday xidami muhammadin wasilati wa junnati ani laadi wal azaa wa jannati wa ali wa sahbil abrari في العال والمال بالتكرار هذا وخصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تسر مصفعا بي كفيت ماسر خدرمت من رب البرايا خدمة liman bijaayi kafaani sadma ahmadu ala xurujin min darar wa kulli suuin wa anaayin wa xarar askuru sukran yajurnu sayda bisrin wala yajurnu naawi kayda حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزنزا الخرورا ماجي دغان ديجان ديجان كتب محمد رسول الله يلا يلا يا رب هذا البيت ماجي دغان bis bu ma ay doom ca yàlla danaa la sant baray fukkeel ba mu yaadaka lu màgg màgg du jël sunu leer bur yàlla naan ko waxal mën fi xel bu moor ndax kan man yàlla du moor kuy woote yàlla bur yàlla daal di bindanting moom ca kun la wax danaa may fukki doom yi buur yàlla kay yàlla la fay bunt bu mag ba yàlla yàlla kee sodolo bunt bu mag ba ana soppi sëriñ Fallilu tabaaw lil xalbi kulla faisin dafa بين تلاوة درجات رسلي إن ابن عبد الله يفاق كل من أخلاه أو يخليه خالق زمن ليس يزقاد في كوني سيدنا أحمد نور الكوني من رحمة الله كل منير في البرايا sama diggante ak moom jumon sax la ñuy wootante ndax ba mu dippee mu xamat doomam ma am doom bu góor mu ne ma fi ma jaar ngay jaar ma topp ay tànkam mu nekk nit ku baax nekk koo xamante ni nii li ma gën a neex ci moom mooy fonk doomu aadama gi mu fonk doomu aadama waaw maa ngi ciy ñëw. damay faral di wax naan ñun animateur ku ci nekk danga am say nit ñun ñëpp danoo jenc suñuy nit taala day jël ay nitam bokk kook ñun xaw ma ndax xam ngeen li ma bëgg a wax. taala yaatu na baax na oyof na bëgg na nit te bëggul kenn ku sonn ba ci ñun ñi muy liggéeyandool dañuy dem fenn ñu liggéey ñun ñëpp ñu am am mu jël li mu am bokk kook ñun wallahi wal azim yàlla rek lay waxal moom xam na sama jikko donc dañu koy ñaanal lépp lu mu yóotu yàlla na ko jot taala seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu jël def ko drapeau yàlla na ko taxawu fu mu mën a nekk kuy wër nit ku baax ba dal ci taala da dëppal te xam ne àgg nga yàlla na ko suñu borom suturaal yal na yàlla teg loxo ci njabootam frère kontaan naa ci yow ayca ñu ñëw ci enveloppe bi. waaw waa Corkat FM. Ami Seck bu waa Corkat FM seen délégation. madame sàll directrice bi nee na gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam nee seen ñaari waajur nuyu taala ci kaw nuyoo bi ñu di ko teg ci loxol papaam alaaji taala Ndiaye. nee na ñu ngi nuyu taala ci kaw nuyoo bi ñu koy teg ci loxo papaam El Taala Ndiaye magam. di nuyu euh, tubaarkàlla macha allah ay ndeyam. nee ñu ngi nuyu ay ndeyam. ndeykan ak euh, gune gi faal. ndeykan ak awa faal. di nuyu soxnaam. su baax si première daam aw buuru këram may ma ma bàkk ko tuuti. nee na képp ku nekk ci tànt bi waa corkaat ñu ngi lay nuyu. taala mooy àdduna kon ñu ngi nuyu waa àdduna. waaw nee na Talla léwul euh, béwul ndax ndax ñoom ay géwél lañu. waaye yaa ma maamam. maami taala. sama jigéenu papa la baayam da koy jaamu. mu ne da koy fekk ci milieu. du yóbbu kanamam indi mooy le car. déedéet da koy teg ci place. tubarkalla. yaru nee yaru na baax na. li ngeen di def nag yéen ñëpp. aha li ñuy def nee ñun ñëpp. yal nee na yal na nu ci yàlla defal teraanga mu fekke ko. nee na média yi ne. journaliste yi animateur animatrice. madame Sall nee na mu ngi ñuy gërëm ñu ngi koy delloo gërëm. daan nee na dañ daan def délégation waaye tey dafa am ñu mu tasaare. Adama Diop la yebal nee Adama Diop la yebal ak beneen rakkam. waaw nee na ñu ngi nuyu waa Medina Fall. di nuyu waa koñ bi. di nuyu Cees ak li ko di ñaanal jàngkat yi. yal na seeni baat wér. nee na ko saf cey ngéwél dugg na. wallaay ndeysaan. Serigne Faye bëgg Fall bu Carrefour Média jërëjëf. Serigne Khadim Samb président fondation Thiès solidarité. di suñu soppe di suñu xarit. jiite fondation boobu ñu tuddee Thiès solidarité nga xam ni képp ku am jafe-jafe tawat wala sax nga dëkk ci kër yenn saa ay jafe-jafe àdduna dal la ba ñu bëgg laa génne bari na ci lu doy waar ci moom moo ko jiite ànd ak ñoom Moustapha Cissé ak fondation Thiès solidarité bi yëpp ñu koy ndokkeel ci guddi tay gi ak ñi mu àndal ñëpp di ndokkeel Assane Mbaye mu Serigne Mbacke Madina teewal fi le PCA Pape Siré Dia PCA de la LONASE ñu ngi lay ndokkeel bu baax yaakaar naa ni ba may recevoir keroog fële ci bureau ba ca Dakar falaa la fekk yaa introduire ñu développé ñu ngi lay ndokkeel bu baax di ndokkeel it maman Amy Seck Gawlo wax na ko léegi muy ci délégation madame Sall Diaw Diop ñu ngi leen di ndokkeel rajo bi moo ma def li ma doon ndax jiitu télé rajo bee ba may opportunité wu ma yegg si wane sama bopp ba waral jotaayu tey bii kon jox ko njal jërëjëf merci beaucoup. di ndokkeel. na dafa yor beneen soutien bu ñu jàll kon yeewi nañ la yaay jërëjëf. fondation bu sopp Serigne baa Sy di fondation boo xamante ni bii ma nee naa leen dama leen naw parce que ci seen biir laa bokk. ñu fonk lool Serigne Babacar Sy si di faa ngi jëmbali ci jawaax Bakary Karaman Aram Lo Kumba Thiam. mbañ pendaak fante pendaak bu guma pendaak xaar yàlla mi des bopp joor góor gi ñu bàkke si faa ngi jëmbali ci l'homme au manteau vert l'homme au sourire et son rôle exceptionnel ki ni woon bu ma rusul woon sama baay ku ma woo ci photo ma wuyu si la Tafsir Demba Guna mooy bàyyi Amadou si ak Basile si càtloo maam Ousmane ñu dégg ko maam fa wade wele maam Thiala Imali borom Tiwaawan ba yàlla ja Abdoul Aziz si da baax so aram bol ko aram bol ko soxna président Oumar Badiane mooy yegg noonu na ñëpp tàccul ma président Oumar Badiane ci forte délégation bi mu def ànd man tey ci guddi tey gi c'est lui le parrain

ànd ak Cheikh Tidiane Thiam ànd ak Cheikh Maguette ànd ak Ndigal Badiane ànd également ak jigéen ñi nga xamante ni bi toujours ñu ngi koy soutenir di ko accompagner. ànd it également ak ñoo xamante ni bi ay femmes de valeur lañu madame la première dame Oulay Sow madame Badiane jërëjëf délégation bi mun naa ni tey Ndeye Gueye Thiam moo ko jiite ndax koñam la ñu ko fekk tey ñu ngi leen di ndokkeel ñoom Amsatou Fall ñoom Seynabou Ndiaye maam Fatim Kandji sama yaay yëpp maa ngi ñëw ci Babacar Diouf jërëjëf président du mouvement xeexal askan wi. jërëjëf tey moom ñëwal ngeen ma yéen ni woon buñ la ñëwalee nga xam ni ñëw nañu. kon ñëwal ngeen ma jërë ngeen jëf jox kanjal encore une fois orienté leen ma président Omar Badiane mu dend ak Serigne Moustapha Fall fee ndax seen vêtement dalal oustaz Babacar Dieye nga xam ni moo fas yéene amal conférence gi ci guddi tay gi Aliou Fall ambassadeur Serigne Saliou Mbacké jërëjëf merci beaucoup Khalifa Ndiaye mu Serigne Babacar dalalaat sàmba Diarra mu Serigne Saliou Mafal jóob naaru ajaratu Fat Sila Diop di jëf waaye nag enveloppe bi ma yor léegi ki jur jox la desee la tula daaxa muy askanu sekkeen lii nga xamante ni bii maay denc seen rakk di denc seen doom muy astu mi nga xamante ni bii moo ma jural Seydouna Mouhamed ak Serigne Fall bi mu toogee ba tey jugul muy ku ma bëgg lool ndax damay wax naan sama digganteeg moom ku muy teey sam xel ci wàccu ngay dëkk ndax daf ma muñal bi mu may jàpp yii xewul barke borom Touba boobu maa ngi jàng métier di jëli añ di dox marché central ak Medina Fall boobu yii xew xewul yàlla jàmmam yàgg lool yaayu Mouhamed ak Serigne Fallou di ndokkeel ak su kase ak Mami Fall mu baax mi nga xamante ni bi ñoo ànd ci bu di tay gi ajal ci fàcc ne sëy madame Camara jërëjëf maa ngi lay kontaane bu baax a baax ak faamu dooleel président Abdoulaye Dieye yëpp di ndokkeel soxna jëmb Thiam moom Serigne Fall Mbacke Fallaw bu sa càmmiñal ma lay ma kunta baarami ci kàddu gi Baye Cheikh Abdou Karim Mbacke borom di ni makaariman ax laa ni jaayi maam jaaraan ndey bu sa doom ja doon baayam jox nga ma tiisi bu rafet léegi jox ma enveloppe bu diis danga maa bëggoon baax na waaw Ali Fall ambassadeur Serigne Saliou bi wax naa ci léegi Pape Sall ngi nii bokk ci VIP de Talla Fata Pape Sall yàgg maa soutenir yàgg maa jàppale tey bis wax la ñu ngi lay ndokkeel bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp di ma jàppale di ma soutenir damay jékki-jékki teg wayu Serigne Saliou wala ma tudd Serigne Saliou damaa mën nag tarkaal la su baana ma làmmiñ damaa mën li may def jéemu ma ko jeexuma ko jeune député barke borom Touba Ousmane damaa mën li may def saabu du fóot boppam waaye boo gisee fóotit xam ni saaboo fa jaar damaa mën li may def loolu dama koy jottaliwaat ñu xam ko Ousmane Banane jërëjëf Sénégal Papa Magdane barke Borom Touba kañu wuma de Mamour naa xam na li may wax kañu wuma réew mépp xam nañ ni li may def dama koo mën réew mi nag bala ngay dégg jox ko njal ñu teg la ci jaag yàlla na yeex bala maa kenn teg ci jaag ñu naan ak a mënoon li muy def ma waxal ko sama bopp lu wér laay wax dama di Dj Talla yàlla day jagle ku la gis xam ni ci askan wu rëy wi nga bokk doon noble pire nga doon ndaw yàlla xiir la ci micro defoo ci dëli nag damaa foog ni sa askan wi nga bokk moo tax nga mel ci li ci mel ndax ñi yëwen ci micro bëriwul dama ni ñu yëwen ci micro bëriwul yëwen nga ci gore nga tabe nga yiw nga tey nga ah jox nga ñëpp cër nee nga man maay sa baay maa nga daan na bay woowee damaa gën a tuuti ci gaa nga daan ma papa yaa ngi lay ñaanal yàlla na la si xalu Mbàkke dara lu lu ko yaa ñu sagal di jël taala sa baay ngee toog lii rek dañoo neex nee naa Alaaji Mor Gueye boo ñëwul suñu toog nag alaaji Mor lii lépp yow la yow la sargal waaye na nuyu naa ñëpp waaye tey Dj Talla rek laay wax tey du wax ci kenn du wax ci ñenn rama dem tey du wax ci kenn. ah ma résumé ko rek ki DJ Talla laay wax yaa des góor am. jërëjëf kenn du yow. jërëjëf. bis ba mu juddoo yàlla sama sama naqar jeex. bis ba mu juddoo la. jërëjëf yàlla la yàlla dafa am jàmm yàlla la yàlla. jërëjëf jërëjëf maa ngi seen jàmm foo mën a bëgg a yegg yàlla dina leen fa yeggal. jërëjëf ndax maa ngi seen jàmm sama yaay di seen baay. jërëjëf bu ngeen mën da yegg da ngeen fa yegg dafa ko borom. jërëjëf soxna Fatou Kiné Seye jërëjëf kontaan naa bu baax Pape Massaer jërëjëf yow président Abdoulaye Dieye boolewuñu depuis vingt cinq ans ñoo jàngandoo alxuraan yàlla yàlla guddal sa fan sàmm la moo teewal le président Abdoulaye Dieye ànd ak ki nga xamante ni bii mooy soxna Fatou Kiné Seye madame Camara wax naa ko léegi Fatou Diop Seck moo jiite délégation bi ak ñoom Maguette ñoo këri ñoom ñëpp ak aana waaw mënul ñàkk boo amee bés woo nit ñi ba ñu ñëw jàng mi neex na loolu maa leen woo pour ñu jàng waaye sant say nawle donte mënumaa sant ñëpp waaye yenn saa yi sama bët daj ci kenn ma sant ko mënul ñàkk ndax bëgg dafa foor ki la bëgg amuloo fayam nii ñëpp ay nelaw lañu yàq te dafa sedd comme may waxal gaa ñi te damay jékki-jékki di wax naan li may waxal gaa yi rek a nekk ci man nag li may waxal gor su baax si rek moo nekk ci man kon bu ma xewlee war naa mën a waxal sama bopp kontaan nañu bu baax dégg naa suma xol sedd na ngir lii ma sama yaay Fat Samb jox na ma doom dénk ma ko teguma pression fu mu toll di ma accompagner ngeen di ma accompagner yàlla na seen jàmm yàgg lool jëmb jërëjëf bëgg naa nday ngoon encore une fois bëgg naa du teraanga di ngeen seen xel man rek yenn saa yi danga may yëral ni ko sëñ Moustapha Fall di defee kontaan naa fondation Sopp seen Babacar sama dëkkandoo yi nag aw ma seen fay encore une fois yàlla na ma leen yàlla fayal. kontaan naa bu baax a baax a baax a naa ci yéen président El Hadj si noonu. le président directeur général de la télévision Thiès TV di PDG bu Thiès TV mooy egsi noonu ànd ak une forte délégation ànd ak Ndeye Sadio Wade ñi nga xamante ni bii moo jiite jigéenu Bamba yi nga xamante ni bii waañ wa nekk fële ci université ba ñoom la ko Serigne Mountakha teg ci seen loxo ànd ak oustaz bu mag bi nga xamante ni bii tarkaal la suñu oustaz la tutu ànd ànd ak moom également muy délégation bu mag Pa Moussa Jibi Amina Ndiaye Jibi jërëjëf sunu grand nga depuis Italie nga ñuy consommé di ñu seetaan ci Instagram bi di ñu ci di ko waaye le parrain d'honneur de l'événement président Omar Badiane Papa Amidou Diop jërëjëf kontaan naa Youssou dégg naa Moussa moo yor bu mag ba ca gaar ba yàgg ak lool sama gaar ba Moussa jërëjëf na ñu lool ñu ngi kontaan ci délégation yëpp nga xamante ni ñoo bu ci kanamee ñu daal ci dellusiwaat ñu jox ki nga xamante ni mooy Pape Moussa Mbaye mu daal di fësal boppam bu ñu noppee Ahmadou Gueye xasaayit mi ngi fi après ñu ñëw wéyal programme bi. fi xayma idaal ana soppay taala daal bëggul xaa fi xayma taala la ñuy waayal ana soppay sëñ Saaliw daanaka nga góor gi ndar ndar la li ca taala la ñuy waayal daanaka nga li ca la ñuy guru soxna loolu mi te taala ëllëg nii waaye ana soppay taala di jë jugle nu màggal taala ana soppay di jë taala yëkkati leen loxo ca sa yaay da la gërëm ana soppey taala ana soppey taala Babacar ñëw na Alioune Fall ñëw na Omar Ba Diagne ñëw na Mor de moom ñëw na Khalifa Ndiaye mu sëñ Babacar ma far mu sëñ Omar xoolal ma ñii ana soppey di ja taala fi gën a bëgg Serigne Saliou Mbacké yëkkati loxoy ca kaw Serigne Saliou borom njur borom jàppana sëñ Saaliw borom lagal ku bëgg di jël tala yëkkati yëkkati loxo ñu màggal yoon tala la ñuy wayal tala la ñuy wayal moom de sañ seenal ànd ak mën a mën a tala sañ seenal دانا بيوتا دانا بيوتا دانا تينغا دانا تينغا jërëjëf ku ne xam na ni fii mu toll nii ay dijje bu fu toll fa ay dijje xësaa ay keneen ak keneen ak keneen nga xam ne ñoom seeni anniversaire dañuy dem Esplanade Grand Théâtre wala ñu dem Sorano wala feneen walla King Fat defee ko fa fa tabaarakallaahu yow xalaatoo ci lenn lu dul tàntal yonent bi taala yal na la yàlla fay wax dëgg yàlla nii nga dajale nit ñi dara yóbbuwu la ci lu dul bëgg goo bëgg Seydina Muhammad bëgg yonent bi nag munul munul weesu nga am sa taw tuddee ko ko yonent bi moo ne ko am ñetti doom tuddee woo ma ci kenn danga ma maa beccangal mooy danga ma toroxal te yonent bi kenn mënu koo toroxal fa tabaarakallaahu monsieur Alioune Fall lettre bi baawoon du sax poos bi kon su ko defee taala boo jëlee lettre ba pare madame Badiane da laa indi cadeau bu rëy mu jox balaa sa kàddu. ndax képp koy jox taala kàddu rek mën nga jege si. lettre bi balaa muy yëkkati bii damay bañ li ma daloon ci sëriñ bi ma demoon ci Pire dal ma ndax sëñ bas Abdou Khadre da ko yónnee lettre cinq cent mille. maa koy jottali man ak moom rekk a dend. sëñ bi enveloppe bi réer ci suñu tànk yi ñun ñaar mu ni ma ndekee absenté na ci saa si mu dee ma ni ma. njortoo ni lettre bi ma sëñ Bass jox dafa wadd man nar ko wax ci kaw mu ne ma déedéet déedéet ci ci ci xoolal ci suuf rek ma xool xool gisuma ko mu ne ma bu fi ñëwati loolu lay bañ nag moo tax dama koy teel a joxe sëñ Alioune Fall muy nii ambassadeur bu Serigne Saliou moo la ko jox fa tabaarakallaahu di nit koo xam ni day def social dara luy nduru ak wane wala dara jubluwu ko ci moo tax mu ni ma joxeel ma sama lettre gëmul nag ku dul Serigne Saliou fa tabaarakallaahu dend ak oustaz kër Dieye di ñaan yàlla yal na yàlla gën a yokk kattanam man-manam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaj Pape Fall borom le 9 janvier ñëw na moom itam di nuyu moor 2 mu ngi ne ci kaw moom it li muy yootu yàlla nag ko yàlla jox di ko ziyaara bu baax président Omar Badiane moom boo ko gisee rek tabaarakallaahu ab sëriñ sax nga koy teg ndax yaru gi ne ci moom ak dal gi fi na ñëw ba ci programme bi du wax njabootu Cheikh Ibra ak Cheikh Ababacar Lo kon bajaan yàlla na yàlla sàmm la aar la. bu baax a baax yal na yàlla wéral baat bi bu baax a baax yal na yàlla kon su defee taal nga jël kado bi rek balaa ma lay jox gi. jërëjëf kontaan nañu bu baax Pape musa njàng mi am na solo lool. a yéen tamit taar bés bi dafa ala daw ma dee leen jël image yi bu subaa la nettali bi am na ñu ni woon dina am. dëgg la am na ñu ni woon du am. dëgg la ah, am na ñu ni woon mën na ko ak mënu ko. dëgg la dañu koy yalu wala ñu biral ko. dëgg la de. waaye ku xool tànt bi ni mu demee. li fi jóge moo ëpp fopp li fi nekk. dañuy santaat yàlla sant gu méngoog jëmmam ju màgg ju tedd jël. Mhm. jullu ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ki tax ñu tànt tey. suñu xol dafa sedd rek moo tax yi ñuy wax yëpp yenn saa yi bu ngeen dañoo daanu daanu wun de madame Badiane mi ñu dénk le président Oumar Badiane diplômé de haut niveau dem bitim réew jàngi ba am ay diplôme am ñëw ñu dénk ko président Oumar Badiane mu jël ay diplôme am lépp lem ni ko dama lay soutenir dama lay accompagner ni nga mel ci man néew na jabaru autorité bi ko mel ci man foo toll di ma woo dañuy waxtaan day ñëw ba sama kër di seet si sama soxna di ko defal teraanga njabootam dañu may woo night and day barki Serigne Touba ci taawam ba ci caatam lu muy dugg dañu ciy nekk wallaahi alazim carte yi bi ma koy defal keroog muy invitation soutien yi ba ci invitation parrain yi ak invité d'honneur yi Omar Badiane mii di borom këram dani ma bul ci fay dara wax ma facture bi ñaata la ma fay ko jërëjëf da ngeen di nuyoo jërëjëf kon bu ñëwee ni damay décorer dama koy jox rek ndax awma lu ma ci wax li ma war a wax ci yow lépp xam nga ko ndax xam naa ni moo sabab lii may ñaan ñëpp jël image yi ngir immortaliser jotaay bi bu leen fàtte ñi ci ginnaaw dañoo bëgg seetaan am na ci ñoo xamante ni dañoo bëgg a gis euh, sukk leen kon bu ko defee kan mooy jël kàddu madame le maire ñu dem waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi baalu ñëpp ak yàlla na yàlla boole ñu jéggal di jëtaa la jërëjëf bég nañu kontaan nañu suñu xol sedd na dama xamul nu ma koy def ni ma la dafa tax ñun duñu ay gone ay magi jëmm lañu dëkk bi yaatu na bari na ay nit ñi fi nekk bari na fa tabarakallahu Abdoulahat Ndiaye président euh, di jëtaa la ne nga ñëw nangul ko ko la ilaha illallah waaye laa jëlee ma madame Badiane El Hadj Wade directeur général Pape Cissé ñëw leen teraanga ji yéena ko moom El Hadj Malick Wade ñëwal njabootu El Hadj Modou Gueye sopp na bi nanu ñëw ñoom itam ci la ñu bokk Jabel ñëw leen ñëw leen taxaw yéena ko moom DJ président Badiane am na ñu mu àndal mais man ci délégation madame Badiane laa ànd fa tabaarakallaahu ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi bég loolu di kontaan di ñaan ci yàlla fa tabaarakallaahu li yàlla nga ko yàgg def président Omar Badiane ak parti alternative sénégalaise waaye coalition bi ñuy demee élection muy coalition avec liggéeykat yi fa tabaarakallaahu ñëpp ñëw nañu waaye madame Badiane mii dafa am taxawaay boo am ci moom am péete boo am ci moom am yëg-yëg boo am ci moom li ngay faral di wax ci micro doo géwélu kenn te doo géwél waaye koo téye boo ko taggalee ay maamam lu mu yor dina la ko jox ngir yàlla yonent bi allahuma la adru yàlla ba suñu làmmeñ lor waaye madame Badiane mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar mook ñi mu àndal mi ngi bég lool si sa taxawaay ci moom ci sa diggante ak président Omar Badiane leader yi nekk fii di laaj bari na mais da nga wan ñëpp ginnaaw jox boroom këram kanam kon lu mu la tërale doyul jigéen ñi mu àndal ak parti alternative sénégalais lu ñu la tërale doyul waaye ñun ñii di ay membre ci parti bi nekk ci biir xam li xew lu ñu la terale doyul lii yaa ko moom téeñ la rek yan bi ñëwgal incha allah le 23 juin ci le 23 ci 6h30 nga dégg wiiw président Omar Badiane incha allah li mu la waxoon ni yow rek laa dig poste ci bu ma gañee incha allah yàlla dina ko def madame Badiane bég na kontaan na dañuy bañ a téye kàddu gi waaye yàlla sagal la njaay yàlla na yàlla sàmm la yàlla na yàlla suturaal la ni nga taxawoo sa wéy taxawoo ko sa tante ji léegi wax ba na nga ñoom rot am na lu tax jërëjëf Madiame Badiane kontaan na ñi mu ko séqal kontaan nañu salaamaaleykum wa rahmatullah. rek ñu gagné temps rafet. suñu mbokk buñ naan Ousmane Seck mu bokk ak yow ci panel yi. waaw doon sa sa cousin ma fekk ko keroog fii sa ngénte tayit ma fekk ko fi doonte sa cousin lay li leen gën a boole mooy ay panel nga wone fa yar ak teggin la nga fay dugg sax bëriwul kon daal Ousmane Seck te ñu gën koo xam ci jeune député nee na lii mu def ci enveloppe bi xeeb na ko trop Ousmane Seck taalibe cheikh bu mag bi jullit la gor la mi ngi marché centrale bu Thiès di ja taala Thiès gépp a ci yow fii nga aw bu ko wàcc man day bég naa ci yow soo ma nee màgg daan sama baay bi sama xol bi day sedd guy ay dijee ay dijee jaajëf Euh, Samba si mii. bi mu yëgee ni jàpp naa bi ma statee première affice programme bi. daf ni ma DJ Talla ma ne ko waaw mu ni ma bés bi. maa la offrir benn photo ak baas boo xamante ni bii mooy def publicité baas bee moo ko def gratuitement. waaye tàcc la ma ko bu baax a baax waay. moom laa takkoon mairie fan yii yëpp léegi la ko tekki pour indi ko. fayu ko ci dara mu ngi nii ak jëmmam ju tedd ji boole fu mu toll di ma bëggee te naan ma yonent bi moo ma sant mission ci sa jëmm ji. di xale bu ndaw ku ma bëgg lool Samba. oh là là. en tout cas c'est formidable Dabo. non en tout cas c'est tout simplement magnifique et c'est merveilleusement bien exécuté. est pour vous rappeler que ni man maay l'homme des deux générations. moo tax ma ñëw foofu rek. en tout cas c'est tout simplement magnifique président c'est merveilleusement bien exécuté. Aliou Fall. dara gënul neex lii grand Ndiaga bég nañu délégation bu El Hadj sopp na bi moo egg si léegi bég nañu Oustaz Samba bég naa bu baax wallaahi lancim bég naa dinañu taggal yonent bi léegi incha allah di leen fàttali Oustaz Babacar Dieye moo koy waxtaane chaque année Oustaz Moussa Wade mën nga nële toog bokk ak ñun télévision Thiès TV doon kenn ci biir télévision Thiès TV ñu ngi koy ndokkeel sàmba suma xol sedd na bu dee dafa am kàddu yooyu sànni baax na u oustaz kon sànnil ko rapidement euh, ñu ñëw ci leneen en tout cas président Omar Badiane yox na ma enveloppe léegi nii kontaan naa ci bu baax a baax ak délégation bi mu àndal yëpp sama xol sedd na délégation bu Njaga Wàdd moo si léegi ñi ko jiite ñoom Abdoulahad Wàdd ak ñoom Ndongo ñoom ñëpp ak Moustapha Mbacke Wàdd ñoom ñëpp egsi na ñoom soutenir ma ci guddi gi bég naa ci yéen sama yaay Jéembeng madame Fall surtout Tafsir Moubarak Gaye bi mutu fa awa Joob ak Masamba Gaye Njawar borom banque Baobab bég naa ci yow bu baax a baax a baax sama xol sedd na sama xel dal na gën nga firndeel sama cofeel ci suma diggante digganteeg yow yaayu mari ak Mouhamed Al Basir jaara moo ma wanale woon ak yow ba nga ko jàppee ba tey bàyyi woo ma benn yoon sama ngénte da ngaa ñëw foo toll da ngay jëf ci man kontaan naa ci yow bu baax gis naa teraanga ji yàlla sa jàmm yàgg lool bég naa bu baax a baax ay sa kon oustaz rapidement ñu jël foofu waaw salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu bismillah Eh, ñi ngi nuyu mbooloo mi yëpp buñ jëlee suñu nuyoo teg ko ci nuyoo digital mu yóbbaale ñu géew waaye moom mi comme li muy wax rek lii lépp li ko sabab mooy mbaaxam ndax eh, ci télé la nekk di liggéey Thiès TV sàmba ubbi benn entre petite entreprise di defar yu mel nii ak ay t-shirt ak maillot yu demee noonu mais mu defaral ko benn t-shirt bi mu ko ko waxee dafa ne ko indil moom laay sol tey émission publicité la ko ba tey loolu alhamdulilahi rabbil alamin jural na ko promotion boo xam ne wax dëgg yàlla euh, mi ngi ciy sant yàlla moo tax mu def lii yéene la ko moom nag moom suñu kóllëre mag moom yàlla mi ngi ko jaarale ci jëmmi yonent bi ak Serigne Babacar si radiallahu taala anhu mu sopp lool waaw soppuñu lool macha allah euh, lu mu lu mu xewle danañu ci boole waaw kon nag ñu ngi lay ñaanal euh, yal na la yàlla musal ci dog-dog na la yàlla musal ci dog-dog yàlla aar la sàmm la ndax ku yàlla aar nga aaru janax dafa dem ci sëriñ ne ko dama bëgg bayre bi kañe am nga defal ma ko ndax kaña fa mu génne rek ñu ne kaña gaa ngi kaña gaa ngi man nag bayre boobu laa bëgg sëriñ bi ne ko teema laa defal muslaay mu ne ko bayre laa bëgg bayre boobu sëñ bi jox ko bayre bi laataa muy génn kër sëñ bi bi muy génn ci bunt kër gi dajeeg juróomi muusu siiru mu tiit duggaat ne ko defal ma ko euh, muslaay waaw kon nag yàlla mii aar yàlla na la yàlla ci barki yonent bi wallaahi bëggoon nañ teel a ñëw moo tax programme bi ñu amoon ñu ngi woon ba côté euh, Morolan mhm. mais dañ ko taxañ ndax si jëmm ji waaw kon nag yàlla la yàlla taxaw ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa gën a bëgg salaamaaleykum ñëw tagg yonent bi léegi waaw maa ngi ñëw tagg yonent bi léegi incha allah barki yonent bi euh, euh, nañ ma joxal bi Serigne Moustapha Fall mu ñëw nangul ma lii Serigne Moustapha kaay nangul ma lii taalibe Serigne saaliw la ku may jàppale ci baatin la public bi moo neexut a wax rek waaye bari na fi ñoo xamante ni bii yenn saa yi ñu def kolu man yenn saa yi ma def jàllaa bi rek xaw a làqutu dem bërëbam waaye yenn saa yi nit ñi def kolu rek dem fekk ji ko ca ruxam ba mu faj aajo yi muy taalibe Serigne Saliou bu baax nañuy jël image yi waay euh, di ku baax ku bari valeur di ku ma bëgg lool fu mu toll di ma ñaanal di yëkkati alalam di ma jox yéen a ma wanale woon ak moom Euh, may seen goro bu ngeen ma bëggul woon du ngeen ma wanale woon ak moom te ba ma ko xamee ba tey damaa yokk barke borom Touba. yokk naa de ndax saa yu ma wootee nit ñi wuy suma te lu ma wax mu jub te neex te duma ma ca juum Sëñ Fallu damaa defar lépp lu ma wax mu jub te neex te duma ca juum kon sant naa yàlla bu baax a baax buuru buuru Jalla Jalaal waa Zakal Kamaan kontaan nañu bu baax di bég lool jërëjëf Fall ndokkeel nañ la bu baax jërëjëf. waaw Ahmadou Gueye xasaayit na préparé Moustapha Diagne yoro xudde mbay kaak may mun a yaasin naar di doomu papa Jibi jaañ moom parent di ku baax ku ma bëgg Moustapha dama bëgg nga jug donte dina mitti ci yow waaye jàpp ci rek bërki démb sa baay bi bi ñu ko tuddee école ba fële ca Dakar 2 dañu la wóol di la na ñëw dañu la di Dj Talla ñëwal dina metti lool nañ ma ko jàppalee rek mu am espace mu gën a gàtt ci moom rek fii muy doomu papa Jibi Diagne moom parent nga xam ne ñëpp xam nañ ay teraangaam ci réew mi bëgguma lool fu mu toll di ma teral di ku mbaax ku ma bëgg enveloppe bi ma papaam njëkk a jox mu indil ma ko booba gisaguma papaam billaay wallaay taalaay ci mbaaxam Dj Talla daf lay bégee teralal ma ko mu yëkkati enveloppe bu diis teral ma ko su ma ko fekkee ci boutique am bee télévision écran plat lu ma bëgg dama koy am te duma ci sonn di nit ku baax di ku bari valeur di koo xamante ni bii ku bari jom la ku ma bëgg lool maa ngi lay kontaane mu mel ni dafa am enveloppe bu mu indi ngeen joxeel ko ko kontaan naa bu baax nuyul ma sama yaay Nogoy jaañ tey la gàmmu piir te ku ne xam ne Jibi Diagne moom parent na mu mel ca Pire waaye téewul dañoo bàyyi lépp ni bala ñuy dem piir fii la ñuy njëkkee bu doon seen sago njaboot gépp ay ñëw Moustapha Ami Diouf bu alaaji As Biram Fay moo ma jox benn enveloppe bi jërëjëf ñu ngi koy ndokkeel bu baax yaa ma wanale woon ak moom les chaperons rouges maa ko defal publicité ba maa def la référence moom parent publicité yu baax yi ci réew mi man a wallaay ku def lu baax am lu baax boo bàyyee ba ñu teg la ci jaak ñu naan aka baaxoon du ko jar du ma xaar kenn ba ma dee ñu naan aka baaxoon aka mënoon li muy def te ku xewle woo ma ku bëgg dédicace woo ma ku bëgg vidéo ni di jotaale vidéo ah wax dëgg yàlla tan xam lu mu ma kenn wax dëgg yàlla yoon la bu ma xewlee ma tax taalif ma wax ko ci askan bu baax laa bokk li may waxal doomu gor yi moo nekk ci man déggal Xadim Njaay sama taawu baay bi nee na ma wax ca kaw damaa sol léegi basin riche bi génn ku ne naan ma basin boobu ma ngi ENSA moo ma njëkk jëndal basin riche gannaaw li ma sam papa di defal jëmu ji toog gannaaw luy jóge ci sama jur di ñëw ci man moo ma njëkk a jëndal basin riche boobu maa ngi jàng métier billaahi wallaahi taalaa yi doon kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko sant naa yàlla ndax bokk naa ci sama askan ñi ci seen bidéew jërëjëf keroog bi sama soxna amee doom suñ fàllu mu metti lool ñu yóbbu ko pédiatrie une semaine la tëj boutique am bii di fanaanoo moom hôpital guddi ak bëccëg lu ma nar a génne mu ni ma déedéet wallaahi alazim xoolee ma bëtu doomu baay ak rakkam yi ci kër gi yëpp ñoom ngaya nga xamante dafa ànd ak jëkkëram Jules mbay mu ñëw ak ñi mu àndal ñëpp ñoom Jobbe Diouf ñëpp ñëw sama mag yi sama rakk yi Lamine Ndiaye doon kenn ci man ak ñi mu àndal soxna am ak sama soxna ñoo nekk ci kër gi waaye dara ñaawul waxtu wu ma neex laay ñëw lu ma neex laa leen di sant kontaan naa jërëjëf bég naa ci yéen Moustapha jërëjëf Diagne nuyul ma sama papa ji di moom parent xam naa ni piir bi moo tax ndekkoon mooy ñëwal boppam waaye bég naa lool alaaj Demba bég naa mbokk animateurs yi ñëpp a ngi ne toog kontaan naa ci yéen Mamour Nana jottalil ma nuyu VIP ñëpp ci jigéen ñi ak góor ñi ci ñëpp ñu séddaleel ma awa jeng ak ñëpp na ma ñëpp séddaleel programme bi moo xat moo tax te nit ñi toogaay bi yàgg na te ñi bëgg a joxe bari na waaye délégation bu alaaji Mour gi sopp na bi encore une fois big na Mor de Mor koy ndokkeel bu baax egsi na ci jotaay bi délégation bu Njaga Wàdd wax naa ko ma faal Diop sama waa ji gis naa taxawaay bi Tata Ndeye Sadio wax naa ko léegi ñoom Mama Si ñoom Kanku Diagne ñoom Rose ñëpp egsi nañu ci guddi tey gi jëmb caam Ndey Ngom bég naa ci ñëpp bàyyiwuma kenn ma madame Diouf ak délégation bi ngeen àndal yëpp bég naa gis bu ngeen gisee li may def sax mooy bugguma kenn mer bugguma kenn mer ndax maa fi woo ñëpp loolu rek moo sabab may def nii nde bu doon sama sago damay toog ñëpp di ma waxal si laa bég naa lool Mordo bég naa lool ndongo maa ngi kontaan toute la famille Wade njabootu El Hadj Cheikh Wade bég naa ci ñëpp kontaan naa Pape Sall naa teraanga ji bare na monsieur le maire Mohamed Ndoye ñu ngi lay kontaan bu baax a baax a baax a baax moom it ndeysaan ñu bokk koñ bi muy Baye Fall doon kenn ku ma bëgg ànd ak Mouhamed Rassoul Sey ak ñi mu àndal ñëpp ñëw ngir accompagner ma waaye bëgg naa ñëw na indi li nga xamante ni bii mooy enveloppe bu nen na kon kontaan nañu Massamba Guèye ñëw na léegi barkeelu waaye ki nga xamante ni bii mooy ñëw dégg naa ci ñëpp ñu ngi may jot lu nuyoo ñu bari ñu yegg si te gisaguma leen coof mbay indil na ma enveloppe bu docteur Babacar Ndiaye sama dentiste bi ci ay Nina Fall kor nday Ndogoy Mbaye bu ko defee rek chaque année yaa koy taxawee nga ñëw barkeelu bu ñu noppee ndax dafa na ci ay activité ñu jox oustaz Babacar jeey mooy amal waxtaan wi oustaz Samba Mbodj ñëw ñu taxawee guddi gi waaye sargal yi dama bëgg mu jege si aussi tamit ndax damay sargal alaaji Mor Gueye sopp na bi di sargal Serigne Moustapha Fall di sargal sama wayjur wu góor di sargal également ki nga xamante ni mooy sama wayjur wu jigéen mi ma yar waaye tamit tawarkaal la jotaay bi noonu lay demee bu ko defee rek ñu jox ko moom Ahmadou Gueye xasaayit mu suñu bàyyi Cheikh Gueye mu joxe moom tamit bismillah ala sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا تقديما في امتلاء وسيلتي عليه سلام الله مولي صافلين وانا كل سيد عيون وسجر وغربة عن المصطفى في خلق عيسر ولوين وجيل حاسب واسع له سعب بأغنى الله عن خزي وسم وغاب وسيل وسيلة إلى خير ربي سكر خمان في وفي كريم واحد غدغ أتى بنسوانا ما لسل الدور بالراوي ولا للبرايا للبرايا للبرايا يكون بباخ سرت عبد اللبي bu ko defee rek maa ngi sàkku képp koo xamante ni bi ñëw nga ci jataay bi ngir sama jëmm ju xeebu bi maa wa jërëjëf maa ngi lay ndokkeel nga toogal ma ba tànt bi jeex maa ngi leen koy ñaan ndax musuma soofantal kenn maa ngi koy sàkku bu kenn joxe enveloppe rek dem ndax oustaz Babacar Dieye dafa war a waxtaan Baye Bass xol la ngi ne dafa fas yéene barkeelu jàngal ñu ci xaside yi ndax ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi di sunu xarit di sunu soppe ki nga xamante ni mooy suñu xabaan gi xasaay di doore si léegi moom it fas yéene amal njàng mu am solo ci jotaay bi am na ñeneen ñu war a ñëw ci yoon bi waaye fi mbir mi toll la jaaga ndaw si laa depuis Italie ku ma jàppale ci bés bi maa ngi lay ndokkeel di la ziar bu baax a baax a baax yàlla yàlla taxaw la ci barki Seydina Mouhamed soxna Kuna Mbodj egsi na léegi di sëtu tafsir Ahmadou Baro njegeen ñu ngi koy ndokkeel bu baax Adja Maam Seynabou Ndiaye la femme de valeur délégation El Hadj Mor Gueye sopp nabi bi ñu ngi ndokkeel ñëpp damay bañ a tudd tur comme niñ ma ko waxee bu ma tudd benn tur waaye ñëpp ñëwal nañu président El Hadj Mor Gueye na nabi maa ngi kontaan ci yéen bu baax jàgg naa def teraanga loolu lépp neex na ma waaye dama bëgg a wax particularité wu sargal bi dafa am benn femme bu am problème yoroon kiosque Orange Money boru 3 millions depuis 2017 problème boobu bi mu ko amee femme bi ñu bëgg koo jàllale sama fans la mu yaakaar ma ci ñu woo ma ni ma premier arrondissement am na benn femme bu ñu fa jàpp bu la soxla nee na sa auditrice la ma bàyyi lépp lu ma jàppoon dem fa yàlla dogal jour boobu ci période koor gi ma war a ànd ak moom ak Babacar mais ak ñeneen bi ñu duggee ci otoom ma wax ko ko. ndaw si di fay ba dese neuf cent mille ci guddi gi ñu toogandoo ci benn bërëb di reerandoo mu woo procureur mu ni ma mun naa koo gérer san problème mais dama koy fay mais bu leen wax dara bu subaa lu am wax ma ma ne ko suba lañ koy jàllale président te neuf cent mille la leen yoreel fay na ba dese neuf cent mille munuma duñ ko jàllale ma ne ko waa ah, baax na ñu dem li may wax ne ay dëgg la de ba ndaw si dajale ba am 400000 jëkkëram jaay écran plat ak motoom mu des téeméeri junni ma woo ko ni ko président dafa nar a jàll de 400000 rek lañu am te trois heures dafa war a jàll te ndaw si jigéen la dafa yor njaboot barke sëñ Touba mu ni ma du jàll. même pas 15 minutes Aliou Ndiaye fa la la fekk keroog bi ñuy dajee euh, bureau procureur Ngom ak Assane Mbaye fa la la fekk mu ñëw defal ko segu téeméeri junni. bi ma nee ko nañu dem ñu xool ndaw si nga gis ko dani ma soxlawuma ko yow laa xam ak yàlla mi tax may def lim ma defal may na ma teeree defal na ma lu ne defal na nit sama kanam def na lu ne loolu taxul ma sargal ko taxul ma sargal ko de lii moom ma marqué ci jëf ji kii mu fayal téeméeri junni te gisu ko ba tey lii moom ma marqué te ndaw si budul woon moom keroog day fanaani ji prison barke Serigne Touba loolu moom ma marqué moo tax ma di ko sargal tey mu def ko ngir sama jëmm ji te ba tey gisu ko te yàlla dafa dogal dama naan ku ma defal lu baax ma wax ko lu ma xam ci nit ci lu baax danaa ko wax ba ñëpp yëg ko président Omar Badiane mii c'est pas pour rien ma def ko le parrain d'honneur de l'événement lim ma def moo tax xam naa pas mal de politiciens yu nekk ci réew mi waaye ku gis délégation tayam bii nga xam ni kenn du ni Didier Talla lu tax mu tànn ko di ko def euh, parrain d'honneur muy nijaayu Mouhamed Ndoye mii donte bokkuñu yoonu politique waaye ñu kenn barki démb mu seedeel ma ci président Omar Badiane lu doy waar ci lu baax barki Serigne Touba Mbacke du jëmmam jiyee tax ma koy wax Oustaz Babacar Dieye la ñuy woo mu ñëw waxtaaneel ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye may ñaan balay booba Abdoulaye Ndiaye mii dafa nekk ci préparation combat Gaston production suba te dañu ma lépp lu ma jàpp dinaa ko bàyyi ñëw Oustaz Babacar dama bëgg mu ñëw commencé bu commencé mu jottalil ma sama sargalu wayjur bi ak sama wayjur wu jigéen ñu joxe sargalu ñi nga xam ne kàddu alaaji Mor Gueye sopp na bi dañ koo bëgg a joxe ah léegi ñëw leen mais bu kenn dem bu ngeen ko joxe bu leen dem Oustaz Babacar Dieye na ñëw Oustaz Babacar mooy amal waxtaan wi chaque année Oustaz damaa bëgg nga ñëw Babacar ñu mën a gàttal fii jàllale kàddu yi nga xamante ni bii moo jógee ci alaaji Mor Gueye sopp na bi ñu wéyal programme bi bu ko defee bu ñu paree rek Abdoulaye joxeel ma sargal yi ñëpp toog nag teewlul ma jotaay bi te yàlla buur bi rek tax loolu laa leen di sàkku di leen ko ñaanal Baye Bass Xol la ngi fi xabaan gi xasaay te ngi fi ñëpp a ngi fi maa ngeen leen koy ñaanaat bu baax a baax aji oustaz bismillah damaa bëgg nga ñëw fii oustaz damaa bëgg nga ñëw fii man maay animateur de la jeunesse ngay oustaz de la jeunesse première édition bi maa jaw la woon ca sam si précis ca ngelaw lu metti la kon su ma delloo ca mboy mboy nga rek dama ko war a delloo ak bismillah le communicateur de El Hadj Modou Gueye sopp nag bismillah ibrahima fa lam yasal يعطي رقاب في الأزل حتى سبقت فيكما وما في سبك الأسر من رامت مسك الأجس فلا يراق في المجس ذلك وحد قد نجس سواء كذا في البشر قدمت احمد القديم باسمك ربك القديم شيخ نرم القديم من سك في قد فسر يدخل في النهجين سوى جزاء في الاميم سلال المعصوم نور مزاك كثر من سك في بين مفاد من سك في إبراهيم فال وفي طريق الكمال إن لم يتب لسي جلال يرى عذابا قد نكر من سك في إبراهيم فال وفي طريق الكمال إن لم يتب لسي جلال يرى عذابا قد نكر شيخ إبراهيم ku sëpp Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall may sa biige Kumba Fall bay maam siina bu ñaay Sera Fall Cheikh Ibrahima Amadou Fall Sar Ndiaye biram di bi Fall ma cangaay góor dëgg mooy bay lan la faay ku ku sëñ am di xadi Fall borom daaru Béré Fall. oh. ma ànd ak gars yi nga xamante ni Aline Ndiaye. Morde commissaire Pape Silla ànd ak ñoom bàyyi ko fi nga xamante ni mooy El Hadj Mor Gueye soppay nabi El Mor El Hadj Mamadou Gueye jur ca këram Madou Nderi Mor ca këram Madou la fekk baa alaaji moor ca këraman ndër la cosaanoo alaaji moor jël boppam jox ko sëriñ Babacar Si borom gàññ ak nañ ñi sigi faagay demba bi ci njawaar l'homme au manteau vert au sur resendeur fa wadd farma Diop bakka reeg dara maan aram loo kumba caam bugg penda xaar penda xaar yàlla bokk coor bàyyi sëriñ abdou jel amin ki nga xamante ni moo wutu bàyyam ci dundam sëriñ abdou moo defaraat tiawan sëriñ abdou moo leeralaat tiawan sëriñ abdou moo tax gaa yi jariñu ci sëriñ alaaji malik sëriñ abdou muy wutu bàyyam te dara ñaw parce que la ki la gone waaye monsieur le maire Badiane li ngay yóotu yàlla nga ci jot. maire day yaru yow doo amer naa de maire nga boo doon amer naa nag damay maslaat ci yow waaye doo amer naa maire nga maire mooy ki yaru lool te dal lool bu may seetaan sa image damay am lu may yëkk man nag ginaaru kenn ninu ma xam nga Iran ay waxam la wax man samay wax laay wax man li may wax dara ji Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba rek laa gëm jaam borom Tuubaa rek laa yaakaar waaye yàlla yàlla defal la jàmm. asalaamaaleykum wa ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di am mbegte bu foor ci ñun ci bërëb bu tedd bi ci jotaay bu tedd bi ñëw fekk fi ay kilifa yu tedd. di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxo imam bi nga xam ni suñu boroom dogal na ci quartier bii lépp lu jëm ci wàllu diine mu ñu koy taxawul ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox cëram di nuyu bu baax délégué de quartier bi nga xam ni moom moo nekk fii ci quartier bi ñu jox ko cëram waaye ginnaaw loolu tamit ñu nuyu boroom xam-xam yi fi teew yépp nga xam ni ñoom ñoo ñuy mottali suñu diine dañuy sàmmal suñu tarix ak suñu ngor waaye di nuyu bu baax di ziar suñu kilifa ñu fonk ko ci yar ci teggin ci doylu ci am principe di président Omar Badiane ñu bu baax ziar ko ak délégation bi mu àndal yépp moom mooy parrain d'honneur bis bi nga xam ni suñu frère Talla woote na ko suñu jugee foofu rek dañuy ñëw présenter délégation bi nga xam ni tey moom la fi El Hadji Mor Gueye Sope Nabi yabal ci ubbi léegi ngeen miin ko ci keppaaram muy léppam fépp foo xam ni fa lay dem baa fu muy yable kàddu moo fay jiitu di El Hadji Jabel Mbaye di communicateur El Hadji Mor Gueye ñu nuy ko bu baax jox ko cëram waaye ànd ak frère am nga xam ni doomi gox bi la gox bi fonk ko lool ndax taxawaayu biiram biti di Babacar mbenk ñu gën ko xam ci Mor 2 waaye sekk ko ak suñu frère suñu genn wàll nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk MG immobilier di Alioune Ndiaye nga xam ni li ci ëpp fu muy dem moo koy dawalal waaye feggoo ko commissaire ak Fall Dollar mii kaay ci délégation bi la bokk feggoo ko Baye Sidi mii nuyoo waaye tamit oustaz Babacar Dieye mën naa kaa bool ci délégation bi waaye yàlla seddee ko nag ay jigéen yoo xam ni seen taxawaay seen engagement bëgg El ba jeex tàkk yemewuñ ko lenn ci dëggu ci principe muy suñu sœur soxna Kanku Diagne fekkoog suñu sœur maam ma si mu sëriñ Babacar si ñu gën ko miin ci doomu El Hadj Mor sopp na bi waaye feggoog tamit suñu rakk ju baax ji nga xam ni mooy Rose nekk rakk ci kànku Diagne waaye nag feggoog ci nga xam ni mooy conseil spécial bu El Hadj sopp na bi di soxna maam bu Ndiaye nga xam ni dafa jeex tàkk Serigne Touba Khadim Rasoul waaye soxna Kuna dañ koy boole ci délégation muy njabootam taala kilifa su yónnee kàddoo la ca war mooy matale ku ne xam na ni buñ sañoon suñu kàddu gudd ndax nit bu lu yey baas lu yey seize woote nit nañ ko taggal yonent bi sallallahu alayhi wa lay mbégte mooy ku fa ñëw doyal sëkk waaye natti nga tànn dafa jara tànn ci biir activité El Hadj Mor am na sargal bu ne waaye bii da koo dàqal ci sargal yi ndax ci ko sargal daf ko def te yàlla tax nit nag yenn saay mu sargal nit fekk day xaar lu ko jëfal waaye taala alaaji moor dalaa jëfal dina jëfal féetale ci biir féetale ci biti ba tey nga tax di ko sargal te ñun xam nañ bu baax loo def yàllaa tax sanq ci bëtër ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko seede ña ngi bàyyi faal ñu ziar ko alaaji moor dani soo leen demee na ngeen ma santal biir ak biti taala ndax doon na nit koo xam ne animateur bu taala doon fépp foo déggee taala mi ngi wax du wax benn baat buy blessé taala lépp lu muy wax day nekk wax bu set wax bu rafet te da koy jëf te yàlla tax amul lu muy séentu te li ma gën a neex ci taala mooy dafa yaru taala bu téyewul micro nekkul ci rajo doo dégg baatam ñun nag mën nañ ko seede ndax ñoo bokk bërëb bi ñuy liggéey kon alaaji Mor mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa yàlla sàmm la waaye nee na bu ñu ñëwee sa waajur bu góor bee ñu sant ko bu baax gërëm ko ndax nag doom nu mu mel rek xool ko ci waajur yi mën na safaanu nag doom mën na dëng de waaye lu mu yàgg yàgg yàgg su bàyyi ji baaxe mu jël yoonam waaye doom lu mu jub jub jub yàlla na ko yàlla may waajur bu baax waaye taala El Hadj nee na mi ngi sant bu baax sa waajur wax dëgg yàlla lim ñu waxoon ëpp na lii waaye du ñu bëgg téye temps bi ndax bis bi ñoo ko moom ndax taala bu wootee sarga El Hadj Mor Gueye sopp na bi war na. lii nag ma yor seg la El Hadj Mor Gueye sopp na bi moo ko teg suñu loxo ñi suñu ñëwee nañ la ko jox lii nag lu mu teg sa loxo rek la waaye sa diggante yow ak moom xam nga El Hadj xam nga la ci kanam suñu borom yàlla na ko mottali ñi ngi jéggal bu baax lépp lu fi dëng rek ci ñun la waaye su matee ñu jàpp ne ki ñu yónnee El Hadj wax dëgg yàlla li ci xolam waaye nag bi may présenter délégation bi dama fàtte commissaire wax naa ko commissaire bi lépp El Hadj Mor Gueye sopp na bi nekk conseiller nekk lépp sant nañ ñëpp gërëm ñëpp président yàlla suñu borom sàmm la yàlla taxaw la ci bakk nabil Moustapha. de sec bi li ci nekk taala def ko ci biir poste bi rek taala taala kilifa gi nee na su ma ñëwee nga def ko sa biir poste jeex na def ko sa biir poste bu ko wax. Ah, boo ko waxee rek baaluma la leer na kon jeex na. fas bu jekk jeeg jàmm jeeg joxe bee joobe rasulillahi maami sëñ Abdul Karim Mbacke borom makaarim al axlaaq ay joobe rasul sëriñam maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridina wal muridaate joobe sayyiduna Muhammadu Cheikh Ahmad Bamba ne kii mooy wéeru waay bi nga xam ne ci barkeem la ma yàlla di musalee. duniya adduna bi. wa uxra ak àllaaxira gënu jëm. Cheikh Ahmad Bamba ne ak a neexoon ma doon dëkkandoo Sayyiduna Muhammadu. Sëriñ Bamba ne sama yaram gàllankooru na ba ziyaare ji mu ma Sayyiduna Muhammadu waaye sama làmmiñ ak sama xol duñu dañ di ji doomi Abdallah Diak Amina Seex man Bamba nee na dama dëggal sama diggante ak Yàlla dama yore ba du tagg man Ahmadul Xadim Seex man Bamba nee na war na ma at mu jot ma tagg Sayyiduna Muhammad tagg wu rafet <laughs> kaabun kaabun wa xasaanu kaabu waykat la xasaan waykat la wal busayri qad baaraqo eh sëñ Bamba ne busayri waykat la ba pare jotal na wa kulum shariwa nurun asrar bàyyi Sëriñ Saliou Mbacké borom daaray got borom umul xuraa borom ñaari daaray ca gaabu borom njoowaan ga ca ron xay ga borom wahab liyal ilma saxiixa wal amal as saalihu alladi yukammilu al amal bàyyi may joobe rasulillahi fi ni ñu màggal ko zakal maladul bi arjun najaat bi Cheikh Ahmad Bamba ne kii mooy wéeru waay wi nga xam ne ci barkeem la ma yàlla musale kaabu joobe na rasool xasan tagg na sayyiduna muhammadu musayri joobe na rasool ñoom ñëpp jotal nañu kullu sharu nurun wa asrar sëriñam Cheikh Matar Sylla Cheikhul Asrar ne ñoom ñëpp nañu tagg yonent bi ay leer laa ki secret moom laxul ilmi fi eh, xam-xam mën a yem fi annahu bashirun mooy sayyiduna Seydina Mohamed nit la. wa annahu. li mbir tey dëgg. ku dul rasul. ku dul Seydina Mohamed xel nga xalaat. sëñ Bamba ne bu leen di nattale doomi Abdallah Diak Amina ak gaa ñu baax ñaar biddew yi lu maam Seydi El Hadji Malick wax ma tëj dama guddee محمد خير مبعوث حوا شرفا محمد خير مبعوث حوا maam Seydi El Hadji Malick borom parasel bi penk bi góor gi ci joobe rasulillahi bàyyi sëñ Babacar si borom tekki geeg déggaaral gi borom diñ geeg personnalité beeg bone kaare bi nga xam du ko wengal du sengal du wokkatu du tifli du gessu du xaxtan du ko weñ du xalif des xalif ou cheikh al xalifa l'homme au au sur légendaire l'éducateur exceptionnel barawa haysuma laqayt minhum wahida yaqulu ma et bien yakunu shahida aja lada wida'i ma'ruf non non wa way way min bayni ma'luf il faut il faut mu'allafun bila ajal si si lada taqiq al qawl wal amal wa zaka da'bun musbatun ma parce que wa sadada al hadith lafz est-ce que tubaab yi dañu koy xool ba yàgg ne ko à quoi peut-on te comparer Khalifa au soleil le soleil est chaud, à la mer, la mer est salée, la lune, elle ne nous donne pas de la satisfaction. Donc Serigne Babacar Sy tu es le tout du bien bàyyam ne tabban wa suqan lahum wal badru shafi'una jërëjëf Oustaz ñu ngi bu baax a baax yal na yàlla barkeel daara ji bu baax a baax yal na yàlla yokkal xam-xam bi bu baax a baax vraiment képp ku toog ci tànt bi rek bëgg nga lool lool lool kon su ko defee ñu joxaat déjà taala kàddu gi xam moom tey moom xol bee fees jërëjëf. dégg naa loolu joxal ma micro bi Baye Bass xool. ana Baye Bass. joxal ma ko borom njaxas foofu jërëjëf. Oustaz Babacar. jërëjëf Khalifa Ndiaye mu Serigne Babacar jërëjëf. monsieur le maire Mouhamed Ndoye jërëjëf. léegi dañuy terminer foofu la ñuy terminer Baye Bass moo ñuy tëjal jotaay bi président Omar Badiane toogaay bi metti na te dégg naa ci coono yi mu nekk. léegi Abdou Lahad Ndiaye dama bëgg nga ñëw taxaw nii papa ñëwal bu ñu melee nii yow la yaa ñu yar yaa ñu tette yaa ñu fonk yaa ñu nampatal ci lislaam nampatal ñu ci diine rusuñu ni yaay sunu wayjur ndax wutaloo ñu xas fu ñu neex daagu maa ngi lay ñaanal ci barke Serigne Mbacke soxna loo mi nga gëm Abdou Lahad Kaay borom tey fëg bay laa Cheikh Magui dem xariloo soxna loo Diop Ñandam ma Samba Gàdd ndaag ndaag Marema ak Mourou Fa ma Matar Numbe Cheikh Modou Moustapha maamam moo jële raay bi njaareem yóbbu ko tuuba jële xaadim rasul baayam njaareem yóbbu ko Touba Cheikhul Khadim ay baayam balay sibri la ak sëñ Mbàkke maaram rakki maam moo daara sëriñu Cerno Birahim Ndaama la ca daaru góor gi demoon Gabon jaari maa yombeeg ndimbal wër yi bàyyi basak baara maam yi dana Cheikh góor gi semmal Fuuta gàgganti gànnaar bàyyi sëriñ Saliou Mbàkke mi Moustapha ak Aliou Fall gëm borom xel koom jaaga borom gotam njurul borom jàpp ndal xabbaan borom lagan ak ndookaa borom jowaan nga teroon xay ga maam yi ndongo yi bàyyi Serigne Cheikh Saliou ak Serigne Moustapha Saliou nu ñu mel yow la lii yombul nga di ñu toogal ci tànt ba heure bi bu la neexoon toog def ubbi rek dem waaye lii dañ ñuy yokku sax ku fi ñëw boo dee nit te baax tey nit ku baax te xam lu baax tey def lu baax di nga ñu naw te xam ni wayjur du fawukaay yaay suñu ndëgër laay Abdoulahat moom suma cousin la ay suñu daajël ko mu wax mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ah, amaana xëy na waxi deret lay doon ak mbokk waaye yéen nit ñi fi teew ñëpp mënuñoo fay kenn taala suma nijaay mi ko jur suma nijaay morgay ak aminte ma jur ñoo bokk ndey ak baay ñu ñëw fekk fi mel nii dañ ci am fierté suma nijaay mi mën naa am lu ne ci doom parce man am naa sensu suma ay nijaay yëpp amaana seen ay doom maa ci ëpp sensu fekk ci ñi ci féete ndaw ba ma fay dem boobu benn jarbaat laa bari wuñu waxuma fii de fële ca Kajoor moom mu daan ma fa fekk xam ko bu baax xam suma maam xam li mu dund suma nijaay ba mee doom mu woote bi su mel ni mu mel ni jaadu na bu dul dara suma maam ab sa Diop ak suma maam ummi kenn ku ci nekk ñaar ñooñu ak mu nekkoon ak suma maam ummi fii yéen ñi dëkk fii xam ngeen li may wax man mi lu ma xew fekk na ma ci taxawu na ma taxaw ay jigéenam taxaw ay frère am di nit ku baax daan liggéey li nit ku baax daan def def na ko daan na tukki di liggéey ku ne xamoon na ko mu daan liggéey aussi ci Dakar nekk fa ba toll fi tey ku nekk rek boo amee doom ku ne ak sa destin ak fi la yàlla féetale tey taala lii la ko yàlla sédd nit nag damay ñaan ci kàttanu yàlla loo mën a nekk na nga ñaan yàlla bul des ci ginnaaw jiitu nag yàllaa ko yor te yàllaay jiital te cër boo gis nit di ko doxee cëru sunu borom la. la nga cay def di ci dimbali nit ñi te yàlla tax courage bii ñu la may fekk si la fii nga oote ñëpp fekk la fi kon loo daw xeeb ko sama nijaay moom wàcc na suma impaañaaw faal ak ñi nekk ci kër gi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. programme yi moo bari dakaar mais kon délégation bu mag lañ doon indi du ñu mën lu dul yéen mbooloo mi fi nekk ñu dénkaat leen sunu rak muy sunu frère am nañ fier te fekk leen fi donc lii la nit di jëriñ parce que jàpp naa ne kenn ku ci ne am na yëg-yëg bu ko waral mu jël temps passé ko heure bi mu toog xaar. ñi gërëm ñi fi nekk ñëpp di sant ñëpp gëm sa bopp ay tax a àgg fa nga jëm jërë ngeen jëf merci beaucoup. شيخ الخديم شيخ الخديم شيخ الخديم jërëjëf ma ndax dama bëgg ñu fi nekk ñëpp joxe teranga ñu joxeel ma leen ma Alaaji Mor Gueye Sopp Nabi leen koy jox mooy président Oumar Badiane waa Baye day ñëw sama dof ba bi bu ma noppee bu sëñ Moustapha Fall bi ki nga xamante ni bii moo koy joxe mooy docteur daan ci jëw léegi nii nañu ma jëlal image bi immortaliser leen jotaay bi rapidement ñu gagné temps ñu dajjil ma. président Omar Badiane. ñëwal joxel ma trophée sargal bi nga xamante ni moom la ñuy jox alaaji Mor Gueye sopp nabi sëriñ Moustapha Fall mën naa jege si parce que mu wul la ni nga barke borom Touba dama bëgg trophée yi rek moo ci des bu kenn dem bu ñu joxee trophée yi yëpp ba pare rek ñu dem trophée bu ñu joxee bàyyi ba da ci yëkkati ñaari bayit rek ñoru profité sëriñ Moustapha Fall ki ma bëgg mu joxal ma ko mooy sëriñ Moustapha docteur waaye ci teewaay jëmm yi tedd yi boobu boobu la ko ñu jël photo yi rapidement. président Omar Badiane dafa war a dem mairie te dafa war a assister yëpp. président Omar. jërëjëf Badiane. Alaaji Mor jox nañ ko ku mu sopp jox nañ ko ku mu bëgg. jox nañ ko ku mu jox nañ ko ku mu jox nañ ko ku yaakaar jox nañ ko wéttalam jox nañ ko kiraayam jox nañ ko wéeruwaayam jox nañ ko yaakaar yi àdduna ak alaxiraam muy sëñ Babacar Sy lo moom man de fer au sur de gendarme Fawad Farba Diop ba kereeg dara maan aram loo gu ba jaam bàyyi ma nga tasaanoo ci gërëm moo tax di jëtaala yaayay lii nga def ku def dégg ku deful doo dégg daal Serigne Babacar du ko wengal du ko jengal fa ma ko teg fa la ko teg leeru Tiwaawan ngi. jërëjëf ma ko rapidement président Omar Badiane ma joxeel ba tey. ndax keroog ba mu wootee ca président Omar Badiane lépp lu mu jàpp si ko ku joxal ma ko loolu. teraanga teraanga rek ko koy fay. defal ma ko loolu meew jombul pël man ku ma jàmm ma jàmm la man <laughs> ku lekk li nga am ngay teral nit di sama guddi gii laa am guddi yonent bi am lu ma waay xañ ta bàyyi ma Seydina Muhammad bëgg naa li ci des dara Seydina Muhammad Muhammad سيدنا سيدنا محمد محمد محمد محمد سيدنا سيدنا محمد جرجر jërëjëf Baye Bass mooy Serigne Moustapha Fall moom Serigne Saliou di sunu xarit di ku ñuy jàppale ci wàllu ñaan boole di yëkkati alalam di ñu jox jàpp lool ci bés bi doon koo xamante ni bii ci ndongo yi Serigne Saliou yaral boppam la Serigne bi ñu ngi leen nuyu di la ndokkeel bu baax nga àddu rek ki yëkk mu yëkkati la Serigne Saliou. Serigne Saliou ñi ngi ci dajale itam di leen sargal ko ca nekk la nga seq moom ba tax nga di ko sargal lañ ci yéene suñu borom am na kàttan gi yàlla na ko def su ko defee liñ ci liñ ci jubloo sànni rek muy kàddu yi gàtt mooy sama diggante ak yow loola moom ku ko xam xam na ko muy diggante bu rafet boo xamante ne lépp lu nit di def ci diggante nit ak nit muy euh, muy sàmm kóllëre ak rafetal ko mhm. def nga ko ba mat sëkk mhm. ma koy seereel sa mbokk yi ñi ma ci xam ñëpp xam nañ sama diggante ak yow ak sa waajur wee toog di la ñaanal nag ci dara ji Serigne Saliou mi nga xamante ne moo ma yar te ma am ko foo bëgg a àgg yàlla la fa Serigne Touba àggali te it da nga fa àgg. Mhm. loolu moom ko waaye li may wax lu ma xam la. wax nag dama ko mënewut <laughs> waaye daal li may yéene man te xam ko. Mhm. te bëgg faa àgg ak yow. Mhm. incha allahu taala da nga fa àgg. incha allah yàlla na suñu borom faj aajo mbooleem koo xamante ne teew na fi. Mhm. ak ku fi jaaroon. ak ku amoon yéenay jaar fi sax te ak seegul. ak ku ci def ñaqam. suñu borom faj aajo biir yi. ak biti yi. di nuyu ñëpp di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di ñaan suñ borom may ñu fekkewaat ko. te tal wér man. ci dara jëy Serigne Saliou. jërëjëf jërëjëf. dama bëgg ci kaw yii may joxe ñu xaar président Omar Badiane jël ay kàddoom joxel ma trophée yi téyel ma bi ma yor nii sëriñ bi joxal ma bii Pape Sall na ñëw taxaw nii président Omar Badiane bëgguma mu dem te jëlul kàddu Pape Sall mu sëriñ Saliou damaa bëgg mu ñëw taxaw damay def chaque année ma xool ci sama fidèle auditeurs yi ci sama fans yi ñi nga xamante ni bii ba ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu ma parrainé leen wala ma mare ne leen ba bu ñu ñëwee aussi ma jox leen diplôme d'honneur bii nag ñu ngi koy jox Pape Sall mu Serigne Saliou les fatigables de VIP may ñaan ngeen tàcc ko bu baax ñu jëlal ma image rapidement président Mor Badiane na ñëw taxaw nii nga xamante ni bi le muy jël kàddu mun nañu jox image nañ joxe trophée yi rek bu ñu noppee sama bu yaay bi dama bëgg ñu mujjee ko parce que kenn la ci man Fatou Kébé marraine la ci guddi gi ñëw na yëkkati teraanga ju bari jox ma jërëjëf kontaan naa lool na faatu Kébé Mballo maa ngi leen di kontaane bu baax jërëjëf jël nañu image yi Fatou jëlal Pape kontaan nañu jox ma baneen bi président Omar Badiane moo ma koy joxeel moo ma koy joxal ki nga xamante ni bii mooy soxna Ndey Astu Camara di l'infatigable de VIP damay ñaan képp ku ànd ak président Omar Badiane ak képp ku fi nekk na nga déglul ma kàddu président Omar Badiane yi ndax kilifa dafay bokk ci ñi nga xamante ni bii du ay kàddu ku fi indi sax nag ndax sama digganteeg moom diggante baay ak doom la sama digganteeg moom baay ak doom la loolu dama bëgg ñëpp bàyyi ko xel. su Assou Camara jërëjëf Joka Njal kontaan nañu bu baax jox ma baneen bi sëñ Moustapha Fall kontaan nañu bu baax a baax a baax. suñu xol sedd na soxna Koña seen mu Serigne Babacar Sy di sunu yaay di ku ñuy magal ñi fi jóge caali ñëw fi sànq ci délégation bi kenn xamul nu mu toll démb mu ñëw andi fi teraanga ju bari nga xam ni yéene la ko defee. kon yaakaar naa ne su ma jëlee nuyu VIP yëpp teg ko ci sa loxo nga jottali ma ko ñëpp damay kontaan lool jërëjëf jokkanjal na ñëpp toog ñu déglu président Omar Badiane moo may joxeel sama bi sama trophée yaay bi Baye Birane ñëw jël samay kàddu yaay ñu tëj jotaay bi te xam ne kontaan nañu Baye Bass bu ñu joxee sama trophée yaay bi nag da fa àddu ndax xam nga fi ñu bokk nday caara jërëjëf kontaan nañ ci famille bi yëpp jërëjëf jërëjëf président dama bëgg buy jël kàddu Oustaz Babacar ñëwal taxaw sama papa taxaw sëñ Moustapha taxaw ñëw leen taxaw kaay leen ote si nañu ñëw ci kanamu président Omar Badiane dama bëgg ote si bu dellu si bismillah président. jërëjëf Didier vraiment maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp nekk si ak santam jiite ko si kilifa gi muy sëñ Talla mi nga xam ne mooy waajuru Didier mi nga xam ne mooy fi dajale ñun ñëpp tey jii bis bi buñ fàttali d'accord bisu yonent bi la. mais di jéeg aussi da si fàttaliku waajuram bu jigéen. ñu delloo waay ah. ndax bis bépp mu di ko ñaan. di ko ñaanal. kon boobu ñëpp nañu ko ñaanal ba li mu yéene si moom. yàlla xarala ko àjjana. loolu buñ ko fàtte parce que ñaan tam dafa jëkk kon nag vraiment di jéeg ñu ngi ñaanal sa waajur bi ñaanal yàlla yàlla xarala ko àjjana. ña ko fa fekk ñëpp. yàlla jox leen ni xéewal ña ko fa war a fekk ñëpp ak ñoom fekk ñëpp yàlla yu xarale leen àjjana. vraiment daal liñ fi ñaan lépp yàlla na ko yàlla nangu. di gërëm nag aussi DJ parce que DJ li ma booleeg moom nekkatul ay ay xamante DJ damaa boole si boppam. damaa boole si boppam. kon ma xam ne sëñ Talla. keroog ba ñëwee si tudd mi. DJ boole ñu nga dugg si néeg toog. depuis boobu la sama diggante DJ nekkatul DJ ak Omar Badiane. dafa mel ni papa doom baa nijaay ak jarbaat. loolu laa seq ak moom. nit ku gore nit ku tabee ngi nii nit koo xam ne sonalul kenn li ma ànd ma yàlla moo ñu boole yàlla moo ñu boole ndax mënoon naa ñëw leader politique yi bari na kon ñu koy waxee rek tey jii am na foo xam ne bu fa demoon dafa am loo xam ne du ko am si man mais loolu yëkkatiwu ko góor na def di liggéey liggéeyam baax a baax a baax ñu sant ko si ñu koy ñaanal yàlla li ko fi yàlla defar parce que bu dee ay talent am na ko. mais yàlla mooy joxe wërsëg. DJ mii waa Thiès soxlaatuñ ko ndax weesu na Thiès weesu na senegal mel na gëm yàlla kon te liggéey loolu nga koy ñaanal. donc tamit ñaanal waajuram yi ñaanal xale mi soxnaam si ñaanal ñëpp ñaanal fan si club mi ñaanal fi muy liggéey yëpp yàlla boo leen dafa leen jàmm. nga xam naa ji DJ DJ mii daal. DJ sama mbokk la DJ sama deret la loolu laa ko jàppee du leneen te ñaan yàlla yàlla aussi ànd bi ñu ànd ñun ñaar ànd bi ñu ànd yàlla bu yàlla tas yaakaar yi kenn waaw yàlla bu yàlla tas yaakaar kenn ndax am na loo xam ne wax naa ko moom waxi gor bu soobee yàlla yonent bi bu dee suñ bëkkan bi loolu yàlla nañ ko defal vraiment ñu ngi leen gërëm de sant suñ taal ñu ngi lay gërëm sëñ bi aussi ñu ngi lay baax a baax te sàkk si yow ñaan nga ñaanal ñu bu baax a baax a baax vraiment kontaan bu baax di jërëjëf jërëjëf sëñ mboolem koo xam nga yilif ko ci wàllu wax bëgg nañ nga wax ko mu jàppale monsieur Mor Badiane. ñoom xam nañu. ne ñoom xam nañu. sama diggante Omar Badiane. ne diggante moom Omar Badiane. moom mooy seul autorité boo xamante ni bii. ne mooy seul autorité boo xamante ni bii. dugal ci otoom. day dugal dugal ci otoom. ñu ànd programme ñu ànd programme. mu pare indi ma ba sama kër ci otoom. mu pare indi ko ba buntu këram. munoon naa wàcc këram daal ni chauffeur bi yóbbu ko. ne munoon naa wàcc këram ni chauffeur bi yóbbu ko. dañuy waxtaanee lu sori moom mooy seul persone bu ni ma. ne moom mooy seul persone bu ni ko. amul ñii topp sama ginnaaw tout le temps li ma leen bëggee. nee mu ne ko ñii topp sama ginnaaw tout le temps ñi ma bëggee. waaye jàppal ni saa yu ma yàlla defee may maire bu commune bu zone nord. waaye jàppal ni man Omar Badiane bu yàlla dogalee ma nekk maire commune bu zone nord. allah yow yaay seule personne bi nga xamante ni bi assuré naa ni dinaa la embaucher maire yi. incha allahu taala yow DJ Talla yaay seule personne boo xam ni man dinaa assuré nekk fal la ci maire bi mooy première personne bi bay ci maire bi. donte benn post lay doon. donte benn poste lay doon. dinaa la ko jox. dinaa la ko jox. sama ngénte. ne sama ngénte. mu bàyyi lépp ñëw. mu bàyyi lépp ñëw. dama ne xaalis neex na lool. ne dafa ne xaalis neex na lool. waaye teewal nit ki jëmmal ko waaye teewal nit ki jëmmal ko. mu yëg la nga yëg ko. mu yëg la yëg ko. te xam ni percal bi lay sàng moo koy sàng. te xam na ni percal bi lay sàng moo lay sàng. coton bi ñuy protéger say cër yi ñuy nëbb moo koy protégé ne coton bi lay protéger say cër moo koy protéger. façon parfum bi ñu lay parfum moom lañ koy parfum millionnaire beeg millionnaire ne gëttu parfum bi ñu lay parfum moom lañ koy parfum. li ñu lay sange ñoo ko bokk. ne li ñu lay sangee ñoo ko bokk. pax mi ni muy toll ñoo ko bokk. ne pax mi ni muy toll ñoo ko bokk. te bu ñu la suulee juróom-ñaari jéego yi dox ku ñu mën a suul bu juróom-ñaari jéego yi matee malaaka yi ñëw. ne Talla ni nga koy waxee yor yaa ko mën a ñaari jéego yooyu ñëpp a ko tolloole malaaka mi xaarul kenn naan ko dama lay xaaral juróom-ñetti jéego kon président Omar Badiane gàcce ngaa laa ma jërëjëf sagal nga ma siggil nga ma. maa ngi lay ñaanal ci barke Cheikh Ababacar loolu ci barke maam Cheikh Rafal mi yóbbuwoon maam Tabadiane sa baay guerre mu dem dellusi si yàlla la yàlla taxaw waaye benn carte de laa yoroon madame Badiane yow lay saw madame Badiane benn carte laa yoroon te yow laa ko ah. benn carte laa yoroon te yow laa ko digg dama ni taawu Omar Badiane ba cim caatam waxuma ñi ngi ci ginnaaw ñi di ko jàppale de taawum ba ci caatam. mais madame Badiane li mu def rek dafa rëy am na bés dama dem rek sama jabar woo ma téléphone ni ma madame Badiane a fi ne indi ko teraanga ju dul jeex nga jël tey lii defal ma ko te xaaruma ko say doom waxtu wala lañ may woo wur na Serigne Touba bég naa lool ba ca kanam yàlla Baye Birane damaa bëgg ni nga taxaw président doylu ma foofu yow Serigne Moustapha Baye Modou Baye Modou Baye Modou Thioune waaw dama bëgg du fët ni ma mbir mi daa dëpp mu def nii ana sama yaay na ñëw soxna Awa Fall. na ñëw Baye Bass fii nii dama bëgg nga am loo fi àddu ci minute bu ñu ko dajjee yaay ñëwal ci minute nga am loo fi àddu ci minute ndax xam naa ni tànkaal la da ngaa mën li ngay def ñu jox Baye Modou mu yëkkati Baye Modou Thioune mu yëkkati kàddu yi moom kenn la ci sam papa kon nag yaay taxawal nii. Baye Modou wax ndax moo ma yar moo ma tàggat moo ma def ma mel. jógee ci dënn ci dënn lay dellu lu jóge ci làmmiñ ci nopp lay jaar kenn du ko déglu nit da sa bopp yow nag man li ma gis mooy sa kanam ñeme xam nga lu lu jóge ci dënn bi rek ci dënn ci kanam gi lay génn man su ma nee marketing laa def ne sale liggéey ba retraité su ma nee salaamaaleykum ci kër gi say kanam laay xool soo ma fayee war naa xam damaa war a toog wala damaa war a dem su ma sa kanam boo ma ubbilu sa kanam man la dama fay jaarul di la nuyu rek dem na doo xam ne mu fi indi fekk yaa ma taxoon a jóg waaye sëñ bee it yal na yàlla guddal sa fan yokk sa xam-xam ndax li ngay defal taala mii taala ku baax la te ku am fulla la man gis naa loolu baax na waaye am na fulla waaye yéen itam képp ku teew ci baas bi daal yal na yàlla saw fan wéral say ci yokk say soxna si yow soo tëddee rek nelawal tey ñaan ñaan garab moo ni jariñ ñun ñëpp ku ci am sa ñaanu waajur da mucc fi mucc fan jëm na ñëpp fexe ba am seen ñaani waajur waajur mooy fondation tabax bu amul fondation man ngaa tegalee birig de waaw man nga faa jóge mu daanu wala mu daan sa kaw kon yàlla na yàlla dolli dimbali sëñ Omar li ngay sàkku bu gënee ci yow yàlla na la ko yàlla jox su gënu sax yàlla na ko yàlla gënal ba mu gën mu jox la ko ci barke Seydouna Mohamed barke Xaalimu Moustapha doole Cheikh Saliou Mbacké jërë ngeen jëf. ñu ngi télé yi nga xam ne ñoo ñëw wuy si ko muy Thiès TV ak Fayda TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla bàyyi bas xol mii du suñu bàyyi Abdou xol fii ci angle bi incha allahu taala le 21 janvier sëñ Xaadim Gueye moo koy taxawee insha allahu taala na ci ñëpp ñëw le 21 janvier ñu ngi ñu ngi sant euh, Thiès TV ak Fayda TV di leen gërëm di sant waa koñ bi ndax lii bu amee doole waa koñ bi la tantan tantam ndeykan ne ñu dénk ko way juram ñoom soxna Maawa Gay ak soxna Ndaa Gay waa kër gi waa kër gi yëpp ak sëñ Mbay Fall mii yàgg na ci tànt bi fa tabaarakallaahu ne ñoom seen i dëkkandoo lañ lu xew ci ñoom di ci ne lu xew ñoo koy njëkk a yëg balaa kenn di ko koy ne Jibi Njaay mii mu sama xarit la Italie di gis samay image wala samay vidéo di kontaan di ma félicité wallaay day nekk ba Italie di gis image am di ko félicité neuf bi mu ma yëg naa bi jàppal ni maa nga fa ne keroog bi mu ne cëpp dañu ko yëg naa bis bi waaye jàppal ni maa nga fa kii mu ne ko ñii ay xale lañu nangam nangam. tonton du mii maman Koña mënoon nay wax mu ne ko ñii ay xale lañu waaye dafa ñëw bëgg bëggale ma ko gën maa bëgg. nee bëgg bëggale ko ko gën ko ko bëgg. bu may wax ak moom dañuy mel ni ay moroom. nee buy wax ak moom dañuy mel ni ay moroom. fay maam ñaanal naa nee ñaanal na ñëpp. sama fan si moom fansam yeeg ñëpp ñaanal na ñëpp góor jigéen mag ndaw. sama waajur wi nag. nee ñi mbokkal waajur wi nag. nuyoo góor ñi dama ko teg ci loxo sama rak. nuyoo góor ñi da ko teg ci loxo rakam. mu sës ci man rëkk mu sës ci moom rëkk rëkk ko. sam papa tuddee ko Mouhamed. nee papaam tuddee ko yonent bi. muy Lamine Ndiaye muy Lamine Ndiaye mu baax ma le. nee di rakam. sama Baye Fall la sax ne moom Baye Fall la da koo déggal bu ngeen gisee sànq ñoom ñoo yoroon carte yi di ko indi ci biir mooy invitation yeeg yooyu. Baye Fall la ci man ne Baye Fall la. am naa gan goo xam ne njóobeen la doon ñibbi moom moo bàyyi lépp dem gungeel ma ko ba mu wutal ko oto. ne am na gan gu doon ñibbi léegi njóobeen moo bàyyi ay yitteem dem wutal ko oto. boobu nekk ci moom la ko nekkoon ci moom la ko nawee. nuyoo jigéen ñi nag su ma ko tegee ci Khady Ndiaye. jigéen ñi nuyoo teg na ko ci Khady Ndiaye. ak Ayda ak Ndeye Ndiaye ak Ayda ak Ndeye Ndiaye ak maam Diarra. ñu séddaleel ma. ñu séddaleel ko waa koñ bi. amuñu fay ñoom. waa koñ bi amuñu seen fay. kenn merewu la. ne kenn merewu la. kenn merewu la ñëpp a ne Diop du Diouf bàjjanam la. xam naa taxawaay bi yàgg na toogaay bi. taxawaay bi yàgg na toogaay bi yàgg na. as góor bëggul ku ko mere as góor ko mere. mbokk yi. mbokk animateurs yi. ñëpp ñëw nañu di Jalabaro. ñoom di Jalabaro Alaaji Bayrat Badiane moom sëñ Maam Cheikh mu ngi ne toog moo animation bi fa tabaarakallaahu chaque année moo koy taxawee. ne Lo Ndiaye rakkam. sama soxna nag ne soxnaam madame mention spéciale bu nit ñi toogee bu nit ñi toogee dem te tudd ma ko dem te tudd ko ku ne xam na sama complicité ak moom ne ku ne xam na complicité day am lu mu nuru waaw day am lu mu nduru dama koo bëgg da koo bëgg mu bëgg ma mu bëgg ko te ba mu toogee ba tey jugul te ba mu toogee ba tey jugul mu ngi koy sant di ko gërëm fonkal ko way juróom mais jarbaa tamit ñoom am na carte yu bari sax ñoom ñoo am na carte yu bari ñoom ñoo ko doon yóbbul kontaan na ci ñëpp jërëjëf dijë daala boo ko doppee da ngay def la dof bi defoon rek noo tudd mu ni Mor njaay noo sant mu ni waxaale naa ko ah Papa mu Serigne Saliou moo jaar fii ci ñaw Papa Ndiaye mu Serigne Saliou moo jaar fii ci ñaw bi ñoo jànganoo métier fa tabaarakallaahu yal na yàlla fay la Mouhamed mi yal na màgg bay ne ci rajo yeeg télé di wax wax leen amin sëñ baa ngi def ñaan asillahu bihi lan yatahassara faqul asallahu taysara amin asilana jami'a ma yaqana wa kufana jami'a ma yaduruna wa bidina wa qawina wa kullana wa hablana husna fatana وصلينا على النبي وسلم وقال به حاجة كل مسلم آمين رأي